amis téléspectateurs suñu mbokk internet KM TV voilà mi ngi noonu la seen sista Diatou voilà maa leen ñëwalaat tey fii si seen beneen émission ñu koy tuddee la maison des artistes la maison des artistes nee naa leen su ma ko nekk fii ci Sénégal dañuy daal di taxaw ba ci sa biir kër daal di la seet si fas yéene waxtaan lépp loo xam ne dafa jëm ci sa mbirum carrière maanaam ci sa vie waxtaan ci yow ci lu bëri bëri bëri bëri allah tey nag ma daa maa ngi fii tey fi nga xamante ne moom mooy suñu kër papa Ousmane Seck nag kenn ko présenté si nim réew ndaxte su ngeen déggee Fally Seck xam ne ca la bokk macha tey mu ñëwoon fii seet ñu fas yéene waxtaan ci mbirum carrière am waxtaanaale tuuti ci actualité waxtaanaale daal ci lépp loo xamante ne nag xew na ci dëkk bi dëkk bi ñu a lëbbee ñu xawee doy waar ñu waxtaan lépp fii lay xewee ci fii ci KN TV ay ca resté scotché comme ni ko waxee su nekk rek ñu daal di ñëw ay ca papa nuyu naa la ziar naa la bu baax a baax a baax a baax sama doom bàyyi Eh, maa ngi lay fay eh, sama doom sama jarbaat sama doomu baay Xadijatu eh, KMTV maa ngi nuyu téléspectateurs yi nga xam ne suivre télévision mm-hmm. dañuy tàmbalee nag sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm suñu waajur yi mm-hmm. ñaanal leen ba ñu tëdd ñu ci aljana fan bu ànd ak wér eh, di nuyu tamit eh, kilifa diine yëpp boo limee sax di nga juum naa ñu ma jiital rek sama sëriñ Cheikh Bass Abdou Khader waaw ñaar xalif général bari ci tijaan yeeg moo xam nga lim lépp jàngu bi moom bàyyi woo kenn mm-hmm. ah, di kontaan ci KN TV ci seet si bi ñëw tey seet si yaakaar ni dinañ waxtaanee loo xam ne dina jëriñu téléspectateur bi voilà. Mhm. voilà merci beaucoup sama doomu baay instant bi nee naa leen moom sa papa sama doomu baay laa doon sant et en fi nga xamante ne nee naa leen moom mooy tënkee dinañ ci ñëwaat léegi ci kanam nii su ko defee ay ca papa dañuy daal di rek si sama première question bi nag dafay daal di euh, nekk du euh, comment dirais-je day daal di ñëwaat ci li xam ne moom mooy sa portrait portrait nag soo ko déggee maanaam mooy yow maanaam sa vie. léegi li ci a daw ci daal ci sa ci côté artistique la ñëpp xam euh, Ousmane Seck. Mm-hmm. mooy Ousmane Seck. ci mm-hmm. euh, leader Ousband. Mm-hmm. Euh, bokk ci famille bi Faramare. ñu xam ci way musique. voilà. papay xale yi papa papa bi nga wax macha allah macha allah sama papa Seck Seck si danaa rek en même nekk nag nee naa leen tëngee ci damay daal di ñëwaat rek te yow ndaxte yow dañuy waxtaan ci biir waxtaan nga mm-hmm. ne ma yow ci yow de Rufisque man maa ne Rufisque daal ne gënoon ëpp looy nekk que fii. donc lan mooy sa sa sa sa sa relation ak waa Tëngéej wala bu mën nga expliqué ko mbokk téléspectateurs yi mbokk internet kaay ci liñ jàkkaarloo ñu duñu seetaan. waaw parce que su la nee je suis de Rufisque Tëngéej Bargny ak yëpp parce que man fii laa dëkk Dakar mais Tëngéej dañoo am ay relation profonde yoo xam ni euh, dafa Sidi yàlla na ko borom sampal mm-hmm. moo fa jëloon benn euh, fête de l'indépendance mm-hmm. ma tëgg fa benn soirée rek soirée boobu ñu gisaat ko le lendemain ba mujj gi moom dañ dama leen di jox jour mm-hmm. boo xam ne day nekk ay soirées yu fréquentes loolu def nañ fa après ay quinze xaw ma seize ans yoo xam ne ñu ngi biir Tëngéej te duñu yàqal dara ci suñu soirée bi doon am fii donc ñu dem fa am ah, am fa am fa nekk am fa ay yu baax ba suñu premier anniversaire orchestre bi Dakar laata génn Tëngéej ak Bargny ak di ko wër ñoom xaajal nañu salle te boobu waa Dakar génn ko waaw loolu nag mu nekk loo xam ne li ñu marqué la tax na daal suñu carrière depuis que ñu beru li ëpp ci suñu carrière dañ ko ànd ak waa Tëngéej par ñii dañu ko war voilà voilà muy noonu nga nga nga expliqué tamit lu doy waar ci Tëngéej ku ne Tëngéej wax baax ni wax ndax yëpp yëpp benn la yëpp ci biir Rufisque la mm. donc nga jaaroon nga Tëngéej sa papa jaaroon nga allah mu nekk am solo donc dañuy daal di ñëwaat ci li nga xamante ne nii rek moom mooy euh, par rapport yow euh, par rapport ak les événements donc dañuy ñëw ci yow nag te bu ñu ñëwee tey seet si la dañuy bëgg xam maanaam sa jaar-jaar et tout ça donc tey jii ci lan la ñu ci lan la ñu préparé ak ci lan la ci lan la nekk. waaw fi mu nekk nii. Mhm. ñu ngi euh, def ay soirées. projet yi yooyu. waaw. Mhm. Ah. Mhm. comme comme tout le temps. mosu ñoo jóg di def ay soirées en live. yam partout fii Europe Amérique fu mu mën a def gala yàggul dara muy samedi vingt cinq bi def benn gala bu mag loo xam ne ñu ngi ko doon woo xarit yi tuddee woon ko gala de reconnaissance amoon ay table à cent mille francs cinquante mille entrée simple cinq mille bon bëggoon naa nag ngeen ñëw couvrir ko yéen tamit parce que am naa ñu ko couvriroon bon mu nekkoon loo xam ni vraiment nit ñi ñëw nañu en masse jënd nañu table yi bon yónnee naa la vidéo yi parce que ñëwaloo nga yónnee naa la ko di nga ko di nga ko di nga si ñamal waa KMTV Kër Ndaanaan yi mm-hmm. parce que bëgg naa aussi waa Tëngéej ji euh, gis bu baax parce que ñoom man lépp lu may am tamit dama leen ciy boole bàññeeg yooyu yëpp bon yëpp ay projet la yoo xam ne ak projet décembre yoo xam ne ñu ngi ci parce que war naa ñëw sax Rufisque incha allah si tout va bien damay bañ parce que pare bu ñu euh, pour conclure mm-hmm. mais war naa fa ñoom parce que temps yëpp gëj naa tëndee mm-hmm. te war naa fa ñëwaat incha allah mm-hmm. donc ay sorti album tout ça ay projet la yoo xam ni boo ko waxee rek ngay laaj mun loo joxee dat fekk amul loolu leer voilà. maanaam lii moom da ngay ba amul la leer ndax amuloo lu leer doo ci mën a daal di fuus ci wax loo mm. lan lay daal di lan lay daal di joxe euh, si yan yan si yan di tëggi si yan milliers ngay dem di tëggi comme si yan genre boîte ngay dem di tëggi pour l'instant bi milliers yi bëri na mm. loolu bon bi ma jógee côté Tëngéej ñëwaat Dakar maa ngi basé woon La Paillotte. waaw ay temps aussi doon naa tëgg Escale. bon après aussi euh, tëgg naa fii Gaynde mm-hmm. ay soirées yoo xam ne ñu koy programme tëgg ko mm-hmm. semaine passée commencé naa Golden. kon den moo nekk en face ngalam bon ñu mm. bëgg ko indi ci mercredi tous les mercredis mm. et eh, eh, parfois aussi dañuy dugg ci weekend bi ak pas mal eh, xam nga de proposition yoo xam ne xam ñëwuñu rek toog benn côté fu ñu am rek petite côte bi partout mm. dañuy fu ñu am programme am contrat am tënk ko waaw waaw xam nga léegi basé mm-hmm. pratiquement pareetul waaw parce que foo gis sa mun def parce que côté boo dem rek am nga fa ñoo xam ni ñoom ñu la fay ko takk fuñ ko mën a mbalaxee ñu mbalax waaw foo ko mën a mbalaxee da daal di mbalaxee nekk loo xam ne ndaxte yow papa da nekk nit koo xam ne après si li ma jot a jàng ci yow da nekk koo xamante ne maanaam li ngay def macha allah da nga ko mën moo tax pour nit convaincre la ci musique da xam ne nekk lu wax gis nga ni dëkk bi ak les jeunes artistes ku nekk ñoom jub di way ñoom di jub di way donc mu nekk lu teyoon nag nit jël la maanaam wan la loo xam ne ci musique ñii nga ñu doy na ma yombul sax loolu parce que loolu dama ko remarqué ci yow. non parce que xam nga rek bu dee tarbi yi dañu tarbi yi dañu loo bëgg a nekk sëriñam da ngay doon taalibeem ñu am formation yoo xam ne nag euh, loolu moo nekk suñu force mm. ba nga xam ni expérience bi day dugg. duñu sax mën a gérer côté xew ak xeweeg nekk xam nga en vogue yooyu yëpp duñu ko ko calculer parce que ñun dañu am carrière dañ ko tracé ci kàttanu yàlla tracé suñu carrière xam ne moment bu nekk rek am na luñ ci war a def maanaam bu leen benn dérapage voilà maanaam nga tracé carrière dama am carrière musicale dama ko bëgg xam nga bokk na koo xam ne soxla buzz pour quelque temps après buzz bi def nga créé beneen xam nga loolu moo ci dëkk <laughs> donc euh, concernant nag euh, les jeunes artistes ñi nga xam ni ñu ñëw waaw ah, bëri na ci ñoo xam ni ñu yàkkamtiwul bon góorgóorlu te nangoo nekk taalibe nangoo jàng am ay suivre leen di jël ci ñoom di créer seen bopp di créer loo xam ne si way bi day nekk lu am njëriñ bon que relève relève na ko macha <laughs> merci beaucoup si question boobu papa ñu la ciy jaajëfal bu baax a baax dañuy ñëwaat rek ba ci question d'actualité question d'actualité nag soo ko déggee parce que dañuy ñëwaat rek ci ki xam ne moom sa doom ñu sa doom mooy ñoom Maniaye Seck Maniaye Seck en tant sa doom instant bii nii nii puisque moom yow la yow lañ seet si yow yaay parent donc moom la ñu bëggoon exactement seen relation instant bii relation papa doom moom kenn waxatu ko relation papa doom mais seen relation exactement yan genre relation la yéen ñaar instant bii. côté artistique waaw ah, xanaa mu ginnaaw njureel ak yooyu nekk mm. élève nekk mm. nekk ci école boo xam ñëpp nag ci nekk nga jaar ci école. maanaam daara quoi. waaw moom Ousmane mooy daara. ndax incha allah bu am nañu tëbul yàlla. jaay benn moment nag lenge yi moom moo ko war a moom moo war a gérer Ousmane. am nag ay rakam. donc ñu ngi voilà on a de de très bonnes relations muy ki nga ne moom ci ñu nekk ci yaa ngi koy yaa ngi gis ni liggéey te macha allah moom li muy def mën ko donc yow tey jii en tant que nga nekk papaam ndax waajur bu nekk moom mooy sàmm te waajur bu nekk aussi moom mooy jox leen conseil à son fils à ses enfants maanaam yow ci lan la koy xelal moom en tant que sa doom lan la koy xelal ak si jamono bi nii yi jugandoo maanaam lu nekk mi ngi am ci dëkk bi je vais pas revenir loo xam ne dafa passé ou quelque chose damay ñëw ci li nga xamante ne nekk ni tey maanaam yow en tant que papa yan conseil nga jox nga koy jox bi ma koy njëkk a jox mooy la patience d'abord nangoo toppee parce que nit lépp looy def da nga comprendre dafa wóor parce que boo com voilà waaw nga comprendre xam ce qui se passe ce qui va ce qui ne va pas nga xam lan moo lay yóbbu ci kanam lan moo lay avancer te bañ a mettre euh, trop en valeur li ñuy wax ay affaire xew ak ay buzz nga buzz kenn moom dëkk ci di créer buzz ay affaire xew nag lu jot moom yàlla daf koy def moment bu nekk am na lu ci war a xew mais nga fexe nekk un excellent musicien si ngay def nga mën ko nga jàng ko mu leer ni ku la déglu xam ni yow euh, bokkandoo woo ci nii rek mais danga ko jàng ba mu mën ko après nga modeste après nga patient ndax kenn rek mooy joxe yàlla la te lu jël daf koy def voilà bul dugg ci ay détails yoo xam ne du fenn mm-hmm. voilà rek la am ah.

au ko que ñu xool ci côté positif bi mais moom dañuy xool ci côté négatif wala ñu xool artiste bi ñaar ñi bokk nañ wala ñoo bokk benn famille xaaral ñu jéem ñu jéem a jaxase jaxase yan conseil nga ma leen nag moom dafa daanaka bindoo ah. yooyu loolu fi yàgg la man mii sax su ci yéen jigéen ñi yéen xam ne yéenay. sëy bi wujjee ak lii xam nga hmm. waa ñi bokk ay liggéeyukaay xam nga ku nekk di ma def sa morom mbaa loo xam ni mën naa ñàkk quoi que li nga nar a dem ci nit hmm. di ko yàq wala nga di ko yàqal doon ko ci sa bopp rek ñaanal sa bopp te bul yéene lu bon lu waaye am nga yéene ko ko parce que fa yàlla ay defaree moom moo tax ne sekk nee na yàqkat yëpp fa te boo xeebul li nga am rek yow buur nga ci li doon li nga am John bu bu bëggee noppalu ci àdduna bu xool ñi la tane xoolal bu baax yow ñi la tane euh, liggéeyante nag affaire ku am tuuti xel doo ci dugg ndax am na ñoo kenn du leen laal léeg nga laal mu mel ni balu tens bu dal ci biir day ñëwaat ci yow. moo tax moo tax yéene day rafet jëf day rafet yàqante nag mm-hmm. waxante lu ñaaw am njëriñ waaw yéen nag foofu nga baal ne am ngeen ci part de responsabilité yéen ndax yéen fu ngeen dégg kaa wala dara ay kii wax na lii kii ko defee naan kii li muy wax ak kaala bu wax amplifié ko may valeur loo xam ne amul njariñ wax bu ñaaw jógul dëkkul fa mu jëm fa mu jóge rek alors fi nee nañ fa la cosaan kon hmm, li may gën a bëgg ci émission mooy di wax loo xam ne bu ko di déggee au moins mu am jariñoo ko wala mu nekk alerte wala moo xam daal hmm. mais wax yoo xam ne ay diwa ma lii diwa nii laa diwa nii laa loolu moom. da koo jarul voilà. <laughs> voilà sama doomu bay dinaa leen ba léegi ñu ngi bi naan la maison des artistes fii ba tey ci nga xam ne moom sama kër papa sama doomu bay papa su ma nee doomu bay sax su ma nee papa jaww ji ma ne doomu <laughs> mi ngi noonu. ay ca comme ni ko waxee rek muy lan aar bi comme ni ko waxee aar bi mystique mystique boo xam ne kenn mënu ko comprendre ay ca léegi dama bëggoon ñëw ci beneen question. est ce que yaa ngi par exemple jéem a dem ko sa rakk bi defee kii laa seet instant grand théâtre ci kii bi ma nii grand théâtre wala dafay am ci man yooyu def naa ko ba taay grand théâtre mm-hmm. Sorano Cices yooyu man man lépp lu ma def David la Keba sama rakk la te gërëm naa ko. Mm-hmm. moom nag day door a day door a mm. xam dañ koy door a xam moo tax ñun li ñu def bu bàyyi moom ci la toll dañ ko ñaanal mi ngi loolu kon Kéba instant bi moom moo nekk ci yoon bi yow instant bi dem nga demati grand théâtre donc je voudrais juste savoir est-ce que ba tey yaa ngi ci yaa ngi ci yaa ngi ci yoon boobu di préparé waat wala yaa ngi ci yoon bi di préparé waat bien sûr bien sûr bien sûr que oui mhm. voilà mhm. bokk na ci projet yi mhm. Euh, boo gisee euh, gala bi ma lay wax nii nga xam ne samedi bi la am vingt cinq foofu la ñu tàmbalee mais dañuy avancé waat def defaat waaw yooyu yëpp ay projet la yoo xam ne ci kanam waaw ñu ngi ci quoi incha allah voilà yéen ngi si projet yi ci beneen ki nga xam ne moom mooy sa mbokk bi Aliou Mbaye Nder fan yii gis nañu gars yi ñu jëlaat ay maanaam toogoon nañu yàgg woyatul woon fan gis nañu gars yi ñu jëlaat ay woyam di ko di ko toppandoo di ce que yow yaa ngi préparé lu mel noonu wala tey ci mel yu bëri yu mu woyoon yoo ne nii ay ay ay woy yu yàgg la que est-ce que li ma jël ci son benn genre nga daal di ko imité nga ko maanaam defaraat ko ba nga xamante ne nii bu ñu ko déggee dinañ ah lii maanaam kat mag ak rakk ñoo fi jaar. ah ça se voit que yow li la yónnee kon siiwul loo ko. ay siiwul naa tey jii. Mm. xam nga tey jii man mën naa siiwul mais tey ñi may seetaan ñi lay seetaan. ñoom ngay laajal. Ah, bi mbokk téléspectateur man je comprends mm. mais ñoom ñi ñuy seetaan peut-être seetaan ils n'ont pas compris. est-ce que yaa ngi ci loolu wala déggaguñ ko. puisque ñëpp ñoo ko déggaguñ. ñooñu ngay waxal ay jëm. waaw maintenant bon ñu dem ci première question muy Alioune Mbaye Nder bon nekk koo xam ni c'est un monument je peux dire parce que def na ay jamono fii yoo xam ni am na solo xëy na ñu mujjee judd sax donc ñu bëri fekkee wuñ ko mais génération bi yàggul ñaari génération yi tax lool donc c'est normal que mu dem ba mu yàgg mu quelques morceaux ci répertoire mu mm. tëggaat waa ay jeune talent donc ak ñoom yooyu initiative bu rafet la mais cela ne veut pas dire que Aliou Mbaye Nder def na ko rek man naa ko def mm. mais à actuelle am naa yeneen projet yoo euh, ak euh, mooy euh, morceau coon mm. benn par benn maa koy reprendre dafa nekk répertoire bu riche nag bu bu yaatu boo xam ne mënoo ko jeexal ci benn ak ñaari at wala ñetti at ndànk-ndànk liy doon te bëgg naa occasion boo ko amee euh, riche yi ma la yónnee vidéo nga jàllale ko ci télé kër ndaanaan yi bu dee rajo am na fa live yi nga jàllale ko fa ñu déglu Ousmane Seck waaw <laughs> macha allah bu nekk lu am am solo mu ngi noonu nee naa leen ami téléspectateur mbokk suñu mekk mbokk internet yi ñu fii tey suñu kër bi nga la maison des artistes nous sommes xam ne moom mooy suñu Papa tey déglu ba léegi yéen ngi suñu ci jaar-jaaram di waxtaan ci lépp ñu jëm ci mbirum carrière musicale beeg si question d'actualité yeeg yooyu ñu ci nekk di waxtaan mu nekk lu am am am solo. julli jot na nag. ayca <laughs> lu ñu pause dañ koy jeexal ah jeex na de. te ñu pause. dañ ko jeex julli julli ñu àggali. na <laughs> nga dagg yooyu yëpp. Ah? voilà mi ngi noonu comme ni leen ko waxee ba tey suñu kër euh, papa la ñu nekk mi ngi nii kër euh, papa ci beneen question bi rek nga xam naa ne comme ni émission tire à balaa boobu incha allah. Mm. damay daal di ñëwaat sama ñaari sama ñaari dernière question yi. muy ki nga xam ne moom mooy sa sa sa waaye ndax sànq bi ñu dugg si. da nga am boobu sax émission bi démarré gul nga def benn témoignage bu rafet nga ni xaaral ma dem sol sama daal yi sax daal yi bi ñu ko indee daal yi jëlal ma daal yi yow sama sama technicien bi ñu oh. jël daal yi mais daal yi bi nga koy jël da nga ma wax lu daw sama yaram lu ma neex parce que da nga daal yi di sama doomu waale ma ko may ay sa relation ak waale sa relation ak sa doom naka la waaw xam nga man moom lu ma nit defal moom nee euh, na euh, bu la nit defalee lu baax na ko wax waaw man nag bokk na ci li may jëm def ci sama bopp mooy ku defal lu baax moom danaa ko wax. li may sol yi nee naa daal yi. waaw am na lu nice waaw li ma ko mayee mais xam comme li ma koy sol bariwul. Mm-hmm. bon tey li dugal mu nekk émission bi nga xamante comme daal yu rafet la ma ne xaaral daal yu rafet ma monté ko ma monté ko di wax ne Waly ñu ngi kontaan ci moom ndax daal yi macha allah euh, voilà di wax ne ñu ngi kontaan ci moom muy Waly Seck muy daal yi daal yi rafet na lool lool lool ba tey en tant que bu nekk sa doom aussi euh, ndaxte doom bu nekkee du yoon rek ndax des fois yaa ngi dégg maanaam di ko def conseil conseil parce que conseil bi ndax yaa koy conseil parce que ndaw la aussi te xam nga tamit boo nekkee ndaw maanaam yéen ñëpp ko jiitu ci musique des fois mën def ay erreur ay dérapage ndax mënul ñàkk ngi noonu comme nous sommes des humains euh, l'erreur moom moom c'est humain ndax des fois dina rek boo ko yàgg nga daal ne ko ah doom nii la ak nii ak moom ñëpp koy def mm-hmm. amul mag amul ndaw amul góor amul jigéen nul n'est parfait mais conseil bi moom mm-hmm. conseil bi benn la mm-hmm. papa lañu taxawaayu papa la ñuy taxawee donc taxawaayu papa yéen ñi ngeen gisee ak ñun li ñuy gisee ñuy taxawaay ak seen taxawaay bokkul moom ñun avant tout ay papa lañu ay mag la ñuy doon ay nijaay la ñuy doon xam nga donc mën nañu nekk sax maam parce que c' est une industrie musicale sër yaa ngi ñëw après incha allah bon conseil bi benn sax ci lu baax moytu lu baax di wax lu baax moytu wax lu ndax léegi vaar dafa xew voilà. maanaam wax na lu am solo na léegi daal xew. sax ci di def lu baax. sax di wax lu baax sax di ko jëfe aussi. ndax dafa nekk loo xamante ne lu am am am solo la. voilà mi ngi noonu ay ci dañuy daal di ci li nga xam ne moom mooy. kay dañuy daal di bàyyi. def ni question yi kay mun nañu papa. instant bi les questions donc damay ñëw ci tey jii rek ci mot sa moo de la fin. man pare naa instant bi damay wax sa mot de la fin. maanaam nga daal di motiver nag ñi nga xam ne ñoo ngi seetaan muy sa doom yeeg sa sët yeeg ñi les les jeunes artistes ñi soog a ñëw. Mm-hmm. ayca ma bàyyi la mot de la fin. mot de mm-hmm. ah, laa <laughs> fin mooy sant gërëm. Mm-hmm. vraiment di bëgg euh, sama juum bi mooy première émission KN TV boo xam ne. la maison des artistes. la maison des artistes en émission bi mm-hmm. ah. waaw moo moo ñaan yàlla mu nekk lu jig yaa ngi nga àndal. Mm-hmm. bëgg nag ngeen ñëwaat fii wala ñu am leneen lu ñu def loo xam ni mooy gën a mm-hmm. mooy gën a yaatu. bu ko defee KN TV ñu dem ba bokk di tëgg ay événement ensemble. borom tamit bu ma koy xam naa dina ci mu tudd. Jack Ndaanaan. Jack Ndaanaan. jag ndaanaan bu fekkee ne yow ndaanaan nga te li ñuy wax noonu ndaanaan nga vrai ndaanaan eh. ndaanaan au vrai sens du mot eh. non wool Ousband mm-hmm. en mm-hmm. ñu def suñu première live kër ndaanaan tiir mm-hmm. ok voilà donc c'est ça di sant di gërëm bon bu fekkee wax nañ loo xam ne nag ah waruñu koon waxee noonu ñu koy tuub ndax nit moo matul bon lu ñu wax nag te mu nekk loo xam lu war a jariñ la loolu rek lañ ci jubloo kon ñu sant yàlla julliwaat ci yonent bi ñaanalaat suñu wajur ak kilifa diine yëpp vraiment di kontaan di ñaanal téléspectateur yi mm-hmm. di à bientôt mm-hmm. papa bàyyi am loo xam mm-hmm. euh, tey jii lenn rek benn affaire rek laa bëgg kon doon mooy doon ci fin émission bi loolu lañ koy daal di tëjee nuyoo tàggatoo nga ba pare mais bu ci ñàkk mooy tey par exemple lan la dundoon loo xamante ne nii loo xamante ni loo xamante ni saa boo ko xalaatee rek maanaam sa xol day daal mm-hmm. xamante ni saa boo maanaam eh. da ngay def sa xol day daal di metti ay ci loolu rek laa mm-hmm. ëpp sax. ay na ci boo xamante ne nii saa boo ko xalaatee rek loo xam ne saa xalaatee rek yow maanaam sa xol day metti. gëm naa yàlla de. Mm-hmm. waaye sama sama sama sama sama sama sama demu yaay. su ma ko xalaatee rek. Mm-hmm. vraiment nga xam ma ko fàtte. Mm-hmm. dëgg sa yaay mi génne ah, àdduna. sama yaay mi génne àdduna. waaw ah. day daal di tooy. Ah, day tooy. voilà ndax yaay dafa xol yaay yaay ak doom dafa doy yaay nekkoon ci kër yàlla na ko yàlla yëpp. amiin xaare ko àjjana yàlla daal la maison des artistes la maison des artistes nee naa leen KMTV mu koy daal di def nee leen di xaar képp kuy artiste dinañ dem seeti leen. voilà su ko defee damay daal di jaajëfal sama papa ji nga xam ne moom laa fekk si woon tey papa Ousmane Seck ma papa Ousmane Seck maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal aussi sama technicien yi nee leen mu ngi noonu sama technicien

numéro téléphone bi 77 567 32 50 77 567 32 50 di leen jaajëfal te di leen wax incha allah xaar leen beneen numéro fii ci kër la maison des artistes merci beaucoup.